équipe bu Sénégal comme ni ñu ko gisee rek équipe bi talent kese la individualité bari na ci boo gisee match de poule li mu wane woon ak léegi li ñu wane ça fait deux gis ne équipe bi monte en puissance quoi de match en match. Mhm. mais contre Burkina est-ce que Sénégal xar kanam bii mu indi est-ce que dina ko dina ko continuer. waaw bu baax a baax ndax boo xoolee Sénégal physiquement ba tey joxeegul dara carrément. te football ak Burkina moo gën a neex sax football ak yenn équipe yi ndax ndax Burkina day génn football day génn créer jeu quoi te Sénégal boo génnee football rek am na ci ñoo xamante ni dañoo vif saajo maane Sa Sadio Mané Ismaïla Sarr Bamba Dieng dañuy mën a football ci match boobu quoi ndax espace day ci match boobu. Hmm. waaw démb dañoo gis coach bi démb mu def changement bu boo xam ne bu doy waar la. muy dugal dugal euh, Ismaïla Sarr dugal euh, ak kii tamit ku euh, Cheikhou Kouyaté. Mhm. démb ñu gis Cheikhou Kouyaté dugg dugal. Mhm. Ismaïla Sarr tamit dugg dugal. Mhm. indi indi benn apport boo xam ne moom la Sénégalais yëpp doon xaar. waaw xam nga Aliou Cissé entraîneur la mais Sénégalais yi dañ koy critiquer carrément mais man du ma ko mës a critiquer ndax boobu ba léegi mi ngi yóbbu équipe bi chaque jour au sommet ba mu fi nekkee ba tey démb changement yi mu def rek waaye na ko coaching gagnant dem la def. démb du ma ne jour ñoo gagné match bi démb Aliou Cissé moo gagné match bi ndax moo def changement yi dugal Cheikhou Kouyaté dugal Bamba Dieng dugal Ismaïla Sarr ñu gagné match bi te Ismaïla Sarr ñu bëri dañ doon wax warul football waragul football warul football waragul football moom mu jël ko jël ay responsabilités am yóbbu ko yóbbu ko ba Coupe d'Afrique dem mu dugal ko mu dugal bii. franchement dama gis changement bu garaaw gis naa ndax joueurs yi dañoo émancipé démb te tamit dem na def nañ match bu nga xam ne bu garaaw tellement que toute la tout le peuple sénégalais hier était vraiment content d'eux wax dëgg yàlla. mais ñu gis Sénégal euh, def na beneen xar kanam tey sénégalais est-ce xaaroon nañ loolu ci ñoom. ah certainement man defe loolu loolu loolu yàgg naa ko xalaat parce que j'ai vu que le Sénégal le les 22 jours yu mu yóbbu ay jours yu qualitatif lañ ay jours yi nga xam ne dañuy jouer championnat Europe di toj ñëpp li leen dégg waaw loolu moom bettu ma xam naa ni tôt ou tard nañu changé. waaw demi ñu si ñuy xaar sénégalais yi ci demi-finale bi lan ngay wax sénégalais yi si demi-finale bi. un conseil à donner pour les joueurs parce que équipe doo ko xeeb parce que 11 à 11 ñooy jouer Sénégal daa bëgg a gagné Burkina Faso tamit daa bëgg a gagné mais j' espère que joueurs yi ñoo am ak seen talent finalement incha leen battre d' une manière extraordinaire. mais nuñ débuté nii est que buñ ko continuer dinañ dem ba final. waaw noonu bu mag noonu lay demee sax da ngay déposer dangay ngay do dem nànk-nànk bu yàggee da ngay jóg comme nu mu def que mu ngi ci te démb tamit j'ai vu que le coach a fait un nu mu def noonu yëpp rafet na te joueurs yi tamit ñoom ñoo ñu gën a yàkkamti sa jël coupe bi tamit oui. mais lan ngay lan ngay wax coach bi parce que coach bi démb dafa dugal Cheikh def changement ba nga xam ne gars yëpp xaaruñu ko woon mu dugal Ismaïla Sarr bi nga xam ne ci blessure la jógee démb mu ñëw wane boppam démb li yéen sénégalais yi démb woon Ismaïla Sarr ci donc euh, moi j'ai toujours rêvé tamit mu ñëw mais blessure tamit euh, daf ñoo choqué moo tax gis nañu Sadio Mané moog Ismaïla Sarr boo leen boo boo leen boolee si bi ñoom ñaar dañuy gën a dox mais grâce manquant maam manquant moo tax Sénégal équipe bi da xawoon na suufee tuuti mais depuis mu ñëwee gis nañu c' est bon Kalidou euh, Kouyaté moom c' est un doyen de l' équipe. moom tamit démb bu mu ñëwee wane na fulloom wax na xale yi ndax lii ñun ñoo leen ko gën a bëgg bien vrai que vous êtes des jeunes mais démb wane na talaam dugal na bi yee na jour yëpp et finalement gis nañu troisième bii bi tamit nu mu fa demee tamit. parce que finalement jour yëpp ak mujjee am espoir xam ne ndax équipe yi mun nañ ko baat à n'importe quel moment. mbégte rek gars yi gars yi fu wal nañ fu wal lu wane dëgg ñi dañoo bëgg a jël kaan bi mais nañ gën a yokk rythme rythme bi quoi yokk jom bañ a xam nañ nous sommes des lions et nous sommes des fils des Sénégal si Sénégal lañ juddoo gars yi dañoo war a indil kaan bi sax ñu bëggee bañ juddoo ba léegi mosuñ gis ko lii metti na en tant que supporter Thiaky Sow boobu léegi amul moyen. mais gars yi ngeen ma yàlla mooy waaye naa di di yokk gars si wote jour yi ñu gën a yóbbu xadar football jëm fula ak fayda yëngal ci kaw bu jëree sax gars ñu jëree bakkan bi mooy loolu il temps quoi il temps ñu indi fu coupe bi gars yi. ñun coupe bi la ñu gën a soxla moo ñu intéressé waaw ñu ngi leen di encouragé tamit ñu gën a góorgóorlu waaw. mais démb dañoo gis euh, Ismaïla Sarr dugg ak euh, Cheikhou Kouyaté démb Aliou Cissé changement bu mu def c'est normal da ah. waaw Aliou waaw changement bu mu def démb c'est normal ah waaw c'est normal te a tamit ñëw nañ indi lu ñu soxla surtout la Sarr waaw maa ngi koy bëggee tamit di ko encourager mu gën a yokk affaire yi parce que moom la ñu am. football a demee noonu xam nga sénégalais dañoo yàq ñoom dañu foog ne lépp ku toog ku daga war a ñëw gañ waa ji football di sa góor la kenn manqué wul même suñu manqué sax nit ki soo ko joxul cër doo ko gañ ba pare démb ñoom dañu dañoo ñu fàttewoon ñu dañoo amoon ay manquant kon cas de Ismaïla Sarr dafa ñëw wane boppam. waaw ah, Cheikh Kouyaté dugg deuxième mi-temps dem Aliou Cissé kenn amul lu mu ko wax joueurs kenn amul lu ñu leen wax ñun daal dañ leen wax di leen gën a ñaax nañ ko continuer parce que lii suñ ko continuer ci football mun nañu am lu nekk ci football parce que football moom reenu ñaami la kenn mënul sa morom parce que ñi fi doon tàngal ñëpp yaa ngi gis ñi si nañu waaw te Sénégal moom bokk na si joueur yoo xam ne bokk na tamit ci équipe yoo xam ne ñoo gën a màgg ci football parce que kenn mun leen nax ci football te instant yi moom dafa dafa dafa sew dafa am VAR VAR dafa ñëw ci football lépp kon faute bu ñu daan démb penalty la wala du penalty parce que nit ki soo gagné dina am leen loo xam dina si jéem a jëfandikoo mais ñun xamoon nañ Sénégal moo mun waañ mais doo ko wax ci Lamine quoi da ngay bàyyi ba ñu football ba pare ng doo kaa wax. équipe nationale bi daal bëgg ñoom di leen ñaanal ñoom jàmm yàlla may leen li ñu bëgg ba ñu ñu coupe bi. vraiment kontaan nañ ci ñoom kontaan nañ ci ñoom bu wér a wér a wér parce que Aliou Cissé moom li mu def de moom nice na quoi. mais lan ngay wax lan ngay wax euh, équipe bi mu war a dajal. waaw gëm sa bopp rek ndax équipe moom booy dajeeg moom da nga koy jox cër xam li nga war a def nga koy def parce que nit ki moom boo ko respecté wul li nga bëgg ci moom doo ko am. waaw parce que sénégalais vraiment doyloo nañ leen te bég nañu te bég mi yegg na foo xam ne nii moom. ñun bëgg nañ coupe bi ñëw quoi te loolu la ñuy ñaan chaque jour. Aliou Cissé nag li ma ciy dolli mooy dem moom lim def moom naaj na parce que boo xool ñaar ñim dugal ñëpp ñoom kenn ku ne am na ci bii quoi te ñun loolu la ñu gën a bëgg ñun sénégalais yi xam nga sénégalais dafa bëgg ndam ñun ndam rek lañ bëgg bàyyi ca kaw ca kanam.